waaw ñu ñëw ci euh, dibi bi euh, bu ñu bëggee defar dibi bu neex dañuy jël euh, xorom poobar poobaru doom bi ñu mixé ko ak benn cube ak xorom ak dëwlin loolu mooy voilà mu ngi nii dëwlin daal u huile d'olive bi nga am wala dëwlin bi nga am baax na xorom poobar ak kii ak euh, benn cube that's lii daal mooy nokk su dibi bi lii daal lañ nar a defee nokk su dibi bi jaxase ko ba mu jaxasoo ñu diw ko ci yàpp bi daal di ko lakk surtout lii daal mooy def dibi bu neex saf te tendre waaw ba nag sama mbokk jigéen ñi dama bëgg ñuy def ay nokk su simple parce laaj gu bari du togg parce que togg ñu tufe quand même dibi lañuy ñuy togg xam nga Donc, euh, this is the, the seasoning. This is the seasoning for uh, lamb barbecue. This is oil and pepper and one one ma magi or jumbo or whatever you have and uh, and salt we're gonna mix it together and put it on the lamb and grate it's gonna be a good dibi like a senegalese dibi like you you call it barbecue voilà sama mbokk jigéen ñi alors mes françaises celles qui ne comprennent pas le wolof ou euh, ma langue ben ça c'est le l'assaisonnement pour un bon débit voilà du du tube euh, du po du du sel du pepper like poivre et un peu de d'huile olive ou whatever you got donc ça ça c'est pour euh, faire un bon barbecue de à la viande de de mouton voilà tout simple C'est ça qu'on va mettre sur, le, sur la viande et mettre sur le feu, laisser dorer et c'est tout. voilà donc euh, yàpp baa ngi nii ñu def ci euh, marinade bi di xaar tuuti parce que dafay gaaw a ñor donc après ñu euh, lakk ko voilà donc mu ngi ne voilà tey moom këriñ bi laay lakkee moo essence bi